مختار لي بلا مسير ولا لحين لسواي مدبرا بما على زر يدوم دبرا مها توجه المكاري ليا باقنا باب ذكره وهو ليا أنا رديت وواني رادي بلا مكاره ولا أمرادي رد لغيري جهتي شيطانا من تجب الممر والأوطانا فر لغير جهتي لعينه يسوق لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي وليتي صفت وصفت نبي توفيق هادنا قال الإلهام قد بيا لي مال بيم بدت لي اليوم برب غيب أعاشني ممن خلق وخيب لا يتوجه لنحوي مطعب أني مات مكاره وتعب شهادتي بغير محو كذبا وكوني العبد الخديم خسبا شكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مزير من زنني غير خديم المصطفى فإنني أخدمه بمصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من زلان يكون أبدا مضي بما كخدمتي بدا فقد دلال والإدلال ينقاد لي منه بالحلال مدى دوا قبل لدى المرودي مدى ونان بذكي كل ولي مدى دوا مدى لدى ما ينبى مها ويبي وكفى سنبى مدى دوا عند وناس قلوى مدى كفاني العدا والبلوى مني إلي قمة قد لا شمت روضة إلى القيام عزمت ردياني في ديداني علي رضوان مبيد الجاني ردياني الخلفاء الأربعة وسرد المقربين المبعة من لم يكن أنا يرضى فالكريم ردياني ردا ليس يريم جد الإله المتوى خير جذاب كما تقبل ووعدا عن جزاء صلاة من كرم يلخني هل الذي دون المراء الخاني من سنى خير ذاك يغني أو يضر فذاك بالدار نسوكة وضر أدر ونفى من الرحمن ليس من البيدان والسودان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 ne leen suñuy nopp li may jëlaarem yomb na Cheikh Madou Mbe xabaan musula aji laaj te ku dina la daaj te bàjj baa ñeme naaj masul ni naaj wi tàng na Cheikh Madou Mbe xabaan moo njëkk fab junni dërëm boole buur su ñaan ngalam te ki loxol Bamba magam musula sàkku àdduna Cheikh Modou Mbéxa Baan demaan la daan ci yoonam mbaa muy demaale tànki neen du sol mu keek a dox du lekk bañ ñi na daf leen ni ñu màggal Cheikh Modou Mbéxa Baanaaw Cheikh Modou Mbéxa Baan Cheikh Modou Mbéxa Baan saqi fukk ak saqi juróom lay bojju jébbal sun boroom daa mbàkke kenn du sa moroom yaate ba xiif tasadduna Cheikh Manu Mbay Xabaan dundal nga réewi Sénégal jàlle nga ñëpp yaa di gaal dugi bi suna yaa ko yaal loo ma sawol i nangu na moo suna yow nga jooy la ma na ñëpp jug taxaw ñu màggal Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xabaan jugleen taxaw ci kaw ñu sant ci Ahmadu Ndumbe Xabaan moo suna yow nga jooy ma mbaa gerte yow nga jooy ma moo feela tee nga feelu ma na yow suqur gi sàppi na si ma Ndumbe Xabaan mama sa waalo ma ndey maam jaare te di bokki maam Ndumbe ma jur Ahmadu daam Mbàkke bu soobee yàgg na sëriñ Touba noo ndey te bokki baay ci wàllu maam ak wàllu baay mu dil fa mbokkoom nga jaay la wàcc na mam dumbe daanu wàcc na ma dundumbe dambe na soo wokki bekk yóbbu na ruye ko toppoon aljana mu ngi leen di baalu àq itam nee di ñaan ñëpp maase baal ko àq te xam ne jotaayam fii Cheikh Ibrahima Khoudia Mbacké bu mosaa toll fii bu mosaana toll fii mooy génn teewal boppam mooy sant mbooloo mi gërëm leen sant mbooloo mi gërëm leen ñaanal leen ñaanal leen kàddu mu daan jottali nag kàddu mu daan jottali nag sama jotaay fii tey. nee na jotaayam fii tay mooy jéem a jottali kàddu mooy jéem a jottali kàddu yooyee. kàddu yooyee la ca nag la ca jiitu. mooy ñi mu àndal ñëpp. mooy ñi mu àndal ñëpp. ci wàllu njaboot gi. ci wàllu taalibe yi. wàllu taalibe yi. mu ngi fab kàddoom. mu ngi fab kàddoom. boole ko kàddu njaboot gi. boole ko kàddu njaboot gi. di nuyu sëñ Mountakha Mbacké xalifa général di siyaare di sëñ Mountakha Mbacké général de Mouride. seddali seen kóolute ci seddali seen kóolute ci ñoom ci moom. ak seenug taalibe. ak seenug taalibe. cofeel. ak seenug cofeel. ak seen kóolute. di ko ñaanal yàgg fi ak wér ak wér ak tal ak tal ak mottali li mu yéene lépp ci diinay lislaam ak kër seexul xaddim di nuyu njaboot ak seexul xaddim gépp buntu kër sëriñ Tuubaa yépp góor ak jigéen mu ngi leen di siyaare. di ko ñaan moom itam. di ko ñaan moom itam. ñu ñaanal ko. ñaanal ko. ñaanal njaboot gi ci ginnaawam. ñaanal njaboot gi ci ginnaawam. ba bi nga xam ne moom la woon. ba nga xam ne tool bi nga xam ne si moom la fi si Ahmadou Ndumbe bàyyi woon. bàyyee ko ay doomam. bàyyee ko ay doomam. mu dem bàyyee ko sëd mu dem bàyyee ko sëd yi. mu ni ca kanam. Cheikh Ibrahima Khoudia Mbacke ne ca kanam. ñaanal leen moom njaboot gi. ñu ñaanal leen moom njaboot gi. kër sëñ Mandumbe googu. kër sëñ Mandumbe googu. ñu téye ko rafet. ñu téye ko téyen wu rafet. na ko seen maam ya ak seen baay ya téye woon. na ngi koy ñaan moom xalifa général mu ñaanal ko njaboot gépp. nee na mu ngi nuyu mboolem taalibe yëpp. ci ndigalal ndigalal Cheikh Ibrahima Khoudia Mbacke. di sant. mu ngi leen di sant. mu ngi leen di gërëm. mu ngi leen di gërëm. mu ngi leen di ñaanal. mu ngi leen di ñaanal. ndax bis bi yàgg nañ koo taxawal. ndax bis bi yàgg nañ koo taxawal. saa bu dikkee. saa bu dikkee. lam ca bëgg lépp mu am ko ni ko bëggee. lam ca bëgg lépp mu am ko na ko bëggee. loolee nag la ko waral. loolee nag la ko waral. kenn ku ne wet ga nga féete. kenn ku ne wet ga nga féete. la la ca war. ca war. la nga ca man. la nga ca man. nga def ko. nit nag boo ko defee lu baax. nag boo ko defee lu baax. sant la gërëm la. sant la gërëm la. ñaanal la ñaanal la. loolu rek la man tam leen koy defal. waaye kenn ku nekk. waaye kenn ku nekk. la ci yéene. la ci yéene. la nga ci jëf. la jëf. yàlla mi amul kumpa xam na lépp. mi amul kumpa xam na lépp. kon nag yàlla amul kumpa. kon nag yàlla mi amul kumpa. te ngeen def ngir moom. te ngeen def ngir moom. am na fay. na fay. yal na leen yàlla fay. yal na leen yàlla fay. te fay leen lu kawe seen jot. te fay leen lu kawe seen jot si jëf yooyu. bépp jëf bu fi doomu aadama andi. jëf doot bépp jëf bu fi doomu aadama andi. yal na ko sunu borom gërëm. defar ci jëmm yi gudd fan. jëmm yi gudd fan. ak wér. ne la ngay liggéey. kenn ku ne la ngay liggéey. suñu borom def ci jàppandal. suñu borom def ci jàppandal. def ci barke. def ci barke. ba lépp loo yéene. ba ko bëggee. nga def ca lu kawe sa njortu. ñi nga xam ne ñooy daayira ñooy daayira itam. sëriñ bi wax na yëpp agsi nañ. sëriñ bi nee na daayira yëpp agsi nañ. kenn ku ku ne jox nañ la tontu. nee na tontu li nag li ko waral. boo nekkee ci mbooloo. boo nekkee ci kanamu mbooloo. ñu jiital la. ñu jiital la. jox la seenu ñaq. jox la seenum ñaq. ne la jébbale ko. ne la jébbale ko. boo delsee andi tontu. boo delsee andi tontu. ñane sa ginnaaw na ñane sa ginnaaw. danañ xam ne seenu liggéey àgg na. loolee rek moo waral tontu li. waaye bu toon loola du ko jar nee na mu ngi sant taaliba yëpp te di leen gërëm te di leen xamal ne daayira du addiye daayira toolu àllarba la nit ñi dañ daa nekk ci joor gi ñi dañ daa nekk ci joor gi di ci bay gerte ak dugub ak yeneen meññeef di ci def toolu àllarba di ko yët seenub sëriñ. léegi bu ñu demee ba nga ne. léegi nag bu ñu demee ba nga xamee ne si. tool yi li ci ëpp ci taax yi la nekk. tool yi li ci ëpp ci taax yi la nekk. ñoom seeni tool ñu def ko. ñoom seeni tool ñu def ko. àllarba àllarba muy daayira. kon nag ku ci bokkul kon nag ku ci bokkul ci daayira. jéemalewut jéemalewut daayira. boo ca boo ko bokkee itam. warteef bañ fa saxal. warteef bañ fa saxal. nga fas yéene koo def. ku amul daayira itam ngay wut addiye addiye ak daayira bu jotewuñu dara bul joxe sa tegu daayira yam ca rek dafa ne àddina yu wóoru la tollu àllarba la kon nu ngi sant ñëpp te di leen gërëm di leen wax ne moom mii ci boppam dafee wuutu Cheikh Ahmadou Ndoumbé di Cheikh Ahmadou Ndumbe keroog ba mu wàccee liggéey keroog ba mu wàccee liggéey Cheikh Modou Moustapha jébbal ko Cheikhul Khadim ak boroomam dafa wax ne dafa wax ne lan bu yaa yi àndoon ak Cheikhul Khadim lan bu yaa yi xam ne si ñoo àndoon ak Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Ndumbe mii moo ci de waxul woon ne ci la de dane moo ci desoon kon nag da doon liggéey kon nag da doon liggéey liggéey boobee mu doon liggéey nag liggéey boobee mu doon liggéey nag jugu fi tool bi it fi tool bi it fi kon nag kon nag képp ku ñuy tudd tudd Cheikh Ahmadou Ndoumbé képp ku ñuy tudd rek du tudd Cheikh Ahmadou Ndoumbé xamal ne biir yaa ngi ci biir xamal ne biir tool boobee yaa ngi ci biir boo ko defee la la ca boo ca defee la la ca war. xam nga ko soo ko deful xam nga ko. te moom te moom. dafa nekkoon ci yoonu jub. dafa nekkoon ci yoonu jub. yoonu jàmm yàlla. yoonu jàmm yàlla. te diineem. te diineem. te ngorom. te ngorom. teeg taalibeem. teeg taalibeem. liggéey. nangoo liggéey. lu mu ci am doyloo ko lu mu ci am dellowaale ko seexul xaddim rek lu mu liggéey bu sottee mu joxe ko luñ ko jox mu joxe ko. waaw tool boobu mu fi bàyyi woon nag. too waaye nag tool boobee mu fi bàyyi woon nag. ana ñu koy bay fi ne nii. ndax doom nekkatu fi. ndax doom nekkatu fi. sëdiyee fi nekk. sëdiyee nekk. sëdi kenn ku nekk na seet boppam. ke sëdi nag kenn ku ne na seet boppam. ba xam lu mu jëlee ci sëñ Mandoumbe nag. ba xam lu mu jëlee ci sëñ Mandoumbe. lan la ci jëlee. la jëlee Seex Mandoumbe. bu dee jub. bu dee jub. bu dee jaamu yàlla. bu dee jaamu yàlla. bu taalibe. bu dee nangoo liggéey. bu dee nangoo liggéey. bu dee nangooy joxe. yow mi tudd Seex ma Mandoumbe. lan nga ci war a donnee ci cër yooyee moom si ax ma Ahmadou loo ci donne rek. loolu mu woon nag. kon nag loolu mu fi bàyyi woon. buñ ca nekkee buñ ca nekkee. mooy tax Cheikh Ahmadou Ndoumbe. mooy tax Cheikh Ahmadou Ndoumbe. fa mu féete woon kër ci kër Serigne Touba. woon ci kër Serigne Touba. ñu féete fa. lam doon def lam doon def. ñu di ko def. ndax moom nekkatu fi. ndax moom nekkatu fi. doomam nekkatu fi. nekkatu fi. waaye ay sëtam fi. waaye ay sëtam a ngi fi. ñaandoon ak Cheikh Ahmadou Ndoumbe. ñaandoon ak Cheikh Ahmadou Ndoumbe. Xabaan. ànd ak Cheikh Modou Xabaan. ñoo ànd ak sët yi. yi. kon ñi nga xam ne ñooy xeetu sët yi. ñi nga xamee ne si nag ñooy xeetu sët yi. kenn ku nekk na teg Cheikh Ahmadou Ndoumbe ca kanamam. kenn ku ne na teg Cheikh Ahmadou Ndoumbe ca kanamam. muy roy teefam. muy roy teefam. ndax doy na roy ndax doy na roy bu dee ci diine. bu dee ci diine. bu taalibe. bu dee ci taalibe. dee ci jub. bu nangoo liggéey. bu dee nangoo liggéey. bu dee nangoo joxe fan yi ñuy royee képp ku baax fan yi ñuy képp ku baax lépp dajale na ko kon nag ñi ñuy tudd tudd Sëñ kon ñi tudd nag di tudd Cheikh Mandoumbe nañ teg Cheikh Ahmadou seen kanam nañ teg Cheikh Ahmadou Ndoumbe si seen kanam muy sa rëyu téef tegoon tànkam ñu teg ko fa fa mu tegoon tànkam ba ñu teg ko fa lam doon wax ñu di ko wax lam doon def ñu di ko def ñi ànd ak ñoom itam ñi ànd ak ñoom itam jéem leen a topp ca loole loolee. buñ leen ci toppee. buñ leen ci buñ leen ci topput. ñoom nañ tege ci yoon wa nan ñoom nañ tege sa yoon wa ta dox rek. boo tegee ci yoonu dëgg ta dox. boo tegee ci yoon dëgg ta dox. boo gëstoo. da nga gis ku la dar. ku la topp ku la topp. kon nañ jéem a nekk ci foofu. taalibe itam. kenn ku nekk na seet digganteem kenn ku ne na seet ci digganteem ak boroomam. te xam ne suñu boroom lim ñu fi andee jaamu yàlla rek moo tax mu andi nu fi kon nag lay tax ñu mën a rafetal suñu lay tax ñu mën a rafetal suñu jaamu yàlla rafetal suñu diine rafetal suñu diine rafetal suñu ngor rafetal suñu ngor rafetal suñu taalibe rafetal suñu taalibe mooy liggéey ndax liggéey. ndax liggéey. ci nga mën a am lu lew. ci nga mën a am lu lew. loo xam ne boo ci jëfalee yàlla. loo xam ne boo ci jëfalee yàlla. yàlla dana ko nangu. soo bëggee loo suturaw man nga ko cee am. soo bëggee rafetal sa taalibe man nga ko cee am. boo bëggee rafetal sa ngor man nga ko cee am. te borom kër gii. te borom kër gii. nañ xam ne fii doonutoon kër. nañ xam ne fii doonutoon kër. ay tool la ay tool la doon liggéeyale yàlla yu doon liggéeyale yàlla ba wàcc mu mel nii tey mu mel tey ñu xam ne kon lépp lu am xam ne lépp lu mu joxe boppam joxe am joxe ko lu mu am joxe ko loolu la la amee lii loolee rek la amee lii mu am kon nag la mu ko amee kon la mu amee ci digganteem ak boroomam ak digganteeg Seexul Xaddim ñun ñépp kenn ku ne loolu lañu ñu war a teg sunu kanam def ko muy yitte yi nee na bu nu ko defee lu nu bëgg fii danañ ko am la ñu ragal fële duñ ca gis dara àjjana yombul ngërëmal yàlla yombul dee su ko faraatu képp ku la ko yombalal yéene wala ko nee na yombul de. nee na deesu ko faraatu deesu ko tappale képp ku ko am ku ne xam nga la la ko may nee na kenn ku nekk ci ñun ñii ñépp na càmbar boppam sa digganteeg sa borom sa digganteeg sëriñ bi sa digganteeg dëkkandoo yi ba xam la la ca war def nga ko wala la ca war defoo ko nee na kenn ku nekk na set boppam rek. ne sëriñ bi ci boppam. lim bëgg lim bëgg. ay maamam ak baayam. ay maamam ak baayam. fa mu tegoon tànkam. fa mu tànkam. mu teg fa tànk. ko àndoon ak moom ku nekk itam. nee na ku ànd ak moom itam. loolu la nee na loolu rek la bëgg nga ànd ak moom. ndax sëriñ bi ci boppam. ndax sëriñ bi muy Seexul Xadiim. ña ànd ànd ak moom. ñi ko ci gënal. ñi ko ci gënal. ñi gëm yàlla. ñu gëm yàlla. te jub te jub. dox ko seen bopp dox ko seen bopp. nangoo jaamu yàlla nangoo jaamu yàlla. nangoo koo liggéeyal nangu koo liggéeyal. nangu koo jox seen alal nangoo koo jox seen alal. lu leen ligal ñu def ko. luñ leen tere ñu ba ko. ñooñu dafa wax ne. nee na ñooñu dafa wax ne. boo ëllëgee. duñ leen isaab fii nee duñ leen isaab fii ci àdduna. duñ leen isaab àllaaxira yi. nañ fexe nañ fexe ba nag. nañ fexe ba nag. kuréel boobu xam ne sëñ bi moo ko gënal ci mbooloo mi. kuréel bi nga xam ne si moom moo ko gënal si mbooloo mi moom Cheikhul Khadim. nee na ñu bokk ca kuréel boobu. mooy jub mooy jub. jaamu yàlla jaamu yàlla. dénkaane sa bopp. dénkaane sa bopp. liñ la digal nga def ko la digal nga def ko. liñ la nga bàyyi ko liñ la tere nga ba ko. nangoo liggéeyal sëriñ bi. nangoo joxe sa alal. joxe sa alal. nangoo doyloo la la yàlla jox nangoo doyloo. la la yàlla la yàlla jox. sëriñ bi mbooloo moom moo ko ci gënal. nee na sëriñ bi mbooloo moom moo ko ci gënal. ñeneen ña ca tege. nee na ñeneen ña ca tege. ña ko jox seen bopp. ña ko jox seen bopp. di ko liggéeyal. di ko di ko jox seen alal. di ko jox seen alal. mu ne buñ leen isaabee àddina yi. nee na buñ leen isaabee àddina yi tama duñ leen isaab àllaaxira. nañ fexe ba nag ñun ñii. nañ fexe ba nag ñun ñii. isaab àddina duñu isaab àddina duñu isaab àllaaxira buñ joxee sëriñ bi suñu bopp buñ joxee sëriñ bi suñu bopp tege ci jub tege ci jub tege ci jaamu yàlla tege ci jaamu ci taalibe tege ci lu ñu digal ñu def ko lu ñu ñu def ko ñu tere ñu bàyyi ko lu ñu tere ñu ba ko lu ñuy ragal lu ñuy ko gis fii duñ ko gis ëllëg ku joxe sa bopp nag ku joxe sa bopp nag nekk ci sa bopp. nekk ci sa bopp. lu la dal yaa ko teg sa bopp. lu la sa bopp. sëriñ bi moom. sëriñ bi moom. lim doon mën na ko. lim doon mën na ko. lim war a wax wax na ko. lim war wax na ko. lim war a def def na ko. lim war a def def na ko. teg tànkam ci yoonu siraatal mustaqim. teg tànkam ci yoonu siraatal mustaqim. ku ko dénk sa bopp. ku ko dénk sa bopp. ko déggal ko. ko déggal ko. mu ànd yow ca loolee. mu ànd yow ca loolee. boo ko defee. boo ko defee. bu ëllëgee. boo gisee seex ma ndumbe. gis Seexul Xadim nee na da nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nee na boo gisee la nga bëgg lépp dana jag nee na ku bàyyi yoon wi jaar si ñal wi lu la fakkatal wala lu la jam bul mere kenn yaa ko teg sa bopp sëriñ bi mu ngi ñaan ñun ñëpp suñu ci yoonu jub ñun ñëpp suñu borom teg ñu ci yoonu jub sàmm ñu aar ñu aar ñu ba tege ci yoon wi ko gënal. ba tege ci yoon wi ko gënal. te jëf ci jëmm yi wér. te jëf ci jëmm yi wér. ak kattan ak kattan. ak jàmm ak xeewal. ak barkeel liggéey ba kenn ku nekk la nga yéene ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikhul Khadim sunu borom bi jàppandal ko te gërëm ko wa wasalaamualeykum. amiin.